Je voudrais signaler, compte tenu des délais, avec le scrutin du 24 mars 2024, toutes les passations de pouvoir se feront le lundi 11 mars. Monsieur Président la République Macky dogal tey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 waaye ci situation bu mel nii mën nañ wax ci fi mu ñu war a commencer mooy suñu borom ndax moom mii moom mooy dogal lépp di ko sant di ko gërëm ak yonon bi sallallahu taala wa salim di gërëm suma compatriotes yi ci seen soutien si liggéey bi ma yàgg def à la tête de du Sénégal wasalaam